baax di leen ziar di am mbégte ak kontaante comme ñu koy defee chaque jour di lundi jusqu'au samedi tey nag di tombeek mercredi 14 décembre 2022 sunu làmb le quotidien des arènes sénégalais supplément des stades le quotidien du sport opposé à des jeunes combattants très ambitieux Balla Gaye 2 et Gris face à l'histoire la lourde mission du lion de face à Boy Niang 2 troisième Tigre de Fass en quête de victoire contre Ama Baldé Jackson 2 met en garde Lat Dior je prêt pour le lutte pour la lutte et la bagarre Doomu Dangu fils de Balla une affiche de toute beauté contre Bombardier le 12 février 2023 premier combat revanche de Tapha Tine Pape Demba sur les derby sur le derby euh, Parcelles Pikine Talfa est favori devant Sokh bu ndaw loolu moo gën a fës si yéen kaay bi di sunu làmb mais avant ça comme d'habitude lay nuyu baax a baax Bassirou Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam Mamadou Sène. les ziar. yal na yàlla nangu ziar ci loo ne. sant yàlla bu wér wér. yaa ngi am jàmm. alhamdulilah yal na jàmm ji yàgg. waaw ñu ngi lay nuyu di la nuyu mbokki internet yëpp. leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ñuy ànd ak ñun ci wasaare làmb saa su nekk leen xamal ne dellu siwaat nañ rek ci seen revue des bi ñuy amal saa su ne di lëndi au samedi fii ci wasaare fas yéene di jukki lépp loo xam ne nii fës na ci yéenekaay bii di sunu làmb fas yéene leen koo dëgtal dellu siwaat nañu La de lutte avec Frappe 2022-2023 est la plus belle avec les combats de rêve attendus entre Balla Gaye 2, Boy Niang 2, Reug Reug, Sa Thiès, Ama Baldé, Gris Bordeaux, Tapha Tine, Bombardier. Ils font en ils font en rajoutant le le succulent duel entre Doomu Dangu de Rufisque et fils de Balla Guédiawaye, une affiche de toute beauté qui risque de battre tous les records d'influenceurs Doomu Dangu fils de Balla waaw affiche bu bu a ngi noonu combat bu rëy a ngi noonu combat bu neex a ngi noonu doomu dàngu ak euh, fils de Balla tey bu ñu sukkandikoo rek ci seen euh, ci seeni combat yu mujj waaw bu ñu sukkandikoo ci seeni combat yu mujj kii di euh, kii di bébé dafa monter en puissance fils de Balla dafa monter en puissance monter en puissance boobu mooy Euh, malgré palmarès bi nga xam ne def na ko mais terewul dafa am ay mbër yoo xamante ne nii ñëpp nangul nañ leen seen mën a bëre ñu nekk ay lutteurs yuy bay seen waar ci lutte avec frappe bi mais ñu gën leen a ràññee ci lutte sans frappe mu nekk mbër yoo xam ne presque tournoi boo dem di nga leen fa fekk wala boo leen tuddee nit ñi danañ xam ne ñii ñu miin bëre simple nañu nga mën cee lim ci mel ni général bu Malika mën cee lim ku ci mel ni góor a soog tey boo waxee général bu Malika rek limité wu si moom euh, dem na fi drapeau chef de l'État représente la région de Dakar nekk seen capitaine euh, nekk na fi sampion euh, boo xam ne nii presque sunu làmb d'or ci lutte sans frappe jël na ko. donc nekk mbër moo xam ne ni daal. ci lutte ci simple bi. non loolu loolu loolu euh, loolu foog naa bu kii bu ANPS bi di def la. Hmm. waaw mooy association nationale pour la presse sportive euh, bi ñuy def di primé Modou Lo nekk na ko fi. lutte avec frappe. donc euh, moom Gora Sock moom kii général Malika nekk na ko fi. Euh, nekk euh, le lutteur de l'année donc nekk euh, mbër boo xamante ni jël na ay tournoi ba sonn toll ay période yoo xamante ne dafa dafa kenn mënu ko laalal suuf nekk champion daal ci lutte sans frappe bi ñu ne la ci lutte avec frappe moom fils de Balla moo ko freiné nga tuddaat keneen muy góor Gora Sock Gora Sock aussi pareil te avant Gora Sock da ngay tudd Ondinga Ondinga xam nañ ko mbëru parcelle la nekk euh, mbër boo xam ne nii ci lutte sans frappe bi mu ngi ci la fois passée rek euh, ca terrain gaal gi euh, def na teew na donc mbëru la moo xamante nii xam nañ ko ci lutte sans frappe donc ñooñu ñëpp da ngay gis ne Fils de la jëflante na ak ñoom ay bërekat daan leen loolu indi benn montée en puissance boo xamante nii indi na ko ci carrière parce que des fois dañuy wax naan mbërum ba pare gars yi duñ leen ñemee jël parce que dañoo mën a bëre. Ah. mais moom mu ngi ciy sëgg. mu ngi ciy sëgg mu ngi jëflanteeg ñoom mu ngi ciy daan donc ñaari kombaay yi mu mujjee jóge muy général Malika beeg góor sok bi wane na ne Fils de Balla am na leneen lu nekk ci kanamam. tey bu fekkee ne doomu dàngu la moom aussi pareil doomu dàngu euh, mbër la moo xamante ne nii bokk na ci génération yu fëlandoo. ñëpp jàpp ne làmb ñi ñoo koy téye ji ñu war a nekk relève ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ainsi de suite ñoom ñu war a nekk relève yi mu amoon ay naataangoom yoo xamante ne ni tey euh, ñoom ñoo doon partagé ndoo làmb ji ñu mel ni ñoom Nandi Fall euh, ñu mel ni ñoom Marley ah ñoom euh, alamdaar ñoom Naaru Sokaz ñoom Jordan ñoom Feu Rouge ñooñu ay naataangoom lañ yoo xamante ne nii ñoom ñoo génnandoo ñi ci ëpp dafa bëri ak ñoom daan leen. tey bu ñuy fàttaliku combat bi mujj digganteem ak Jordan la mu génn ci ak victoire kon dangay xam ne euh, moom it xale la boo xamante ne nii ci ay maasam teggiwu leen. daan soq waaw daan na Nandi daan na soq daan na Farouz daan Naaru Sokaas daan na Dunxaaf. daan Alam daan Marle ah. daan Boy Malika daan Vandam daan Mandela daan Guinée. am na ay combats yu bëri yoo xamante ni bëri na ko daan ko moom mu toll ci 19 combats 14 victoires 5 défaites boo xoolee ci ay tolof tolofam mu ngi ko am ci digganteem ak Pape Tine Syndicat digganteem ak capitaine Dina digganteem ak gargade 2 Tyson 2 Ramdan ñooñ ñooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko freiné ci carrière am léegi nag dañuy am beneen combat bu neex combat boo xam ne tey ci wàllu bëre doomu dàngu moom moom moom moom mën nañ ne. moo gën a yàgg ci làmb moo ëpp ay combat moo ëpp ñi mu tasel ci làmb dix-neuf combats kii onze combats quatorze victoire kii huit victoire donc am na ay ay ay ay ay ay yoo xamante nii ñoom ñoo wute ñoom ñoo tase ci bile combat mais li am ba des mooy Fils de Balla luur la boo xamante ni dafa aay ci luur ko muy yenu Balla luur la boo xam ne dafa aay ci luur euh, gone gu miin entraînement la gone gu tàmm entraînement gu ñeme entraînement la mais xale bu mën a bëre la aussi xale la boo xamante ni sañ-sañ bi ñu doon gis ci Balla gay 2 moom la ñuy gis ci moom waaw. déggati la moom tey euh, Boy Niang la indi ne Boy Niang ne le premier janvier na àndoo indi alcool ak witin bu bëri man ak Balla dinañ fa ay yoon waaw ba le premier. mu ne naar do indi alcool ak bu bari waaw ah, man ak Balla Gaye 2 dinañu dinañ fa dem ay yoon ah en tout cas daal bu ardo yàq làmb ji rek làmb ji daal bu ko ardo yàq na na na na am ku daan moroom ji rek waaw ah, na jël am rek loolu foog naa looloo gënal ñoom seen <laughs> looloo leen gënal de. ok. Balla Gaye 2 au front en janvier Gris en février 2023 deux cruciaux rendez-vous pour deux champions le 1er janvier et 5 février 2023 seront inéluctablement deux dates intéressantes dans l'arène et très importantes pour Balla Gaye 2 Balla Gaye Balla Gaye et Gris Bordeaux face Ndakaaru ils affronteront pour la première fois des jeunes combattants très ambitieux qui pourraient savourer waaw tey danga tudd ñaari ñaari ñaari mbër ñaari champion yi bokk ci génération bi mujje génération bi mujje mooy am na génération bu mujje woon ci làmb mooy Mohamed Ndao Tyson mooy Baboy mooy Yaxya Joob Yékini mooy Tafa Gueye ñooñ ñoo nekkoon génération bi mujjoon génération boobu dafa am beneen génération bu ñëw détrôner leen. muy ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoom Gris Bordeaux ñoom Ama Baldé ainsi ci génération bu mujj bi yaakaar naa maintenant Bombardier moo ci des ba léegi maintenant Bombardier moo des ci génération bu bu mujj bi ba léegi di bëre génération bi nga xam ne nii moom lañ xale yi créer moom la ñoom Balla Gaye de créé génération boobu Bombardier dafa tàbbi seen biir mais ci génération boobu da nga fay tudd Balla gay 2 muy seen génération muy génération bi mujj instant bi tudd fa tafaatin Tine tudd fa Bombardier tudd fa Eumeu Sène tudd fa Gris Bordeaux ñooñu ñoom ngay tudd ci génération boobu mais génération boobu aussi fa làmb tolloon ba ñoom Balla Gaye am fitu fëgg porte ñoom Yaxya Jóob ni foofu la làmb toll tey ba xale yi am fitu fëgg port ñoom Euh, Gris Bordeaux et quoi qu'il en soit ñoom ñaar dañuy dem que ça soit muy giri Bordeaux wala muy Modou wala muy Modou Lo wala muy Balla Gaye wala Tapha dañuy dem kan moo ciy dem demu demu demu demu Mouhamed Ndao Tyson kenn xamul kan moo ciy dem demu Yaxya Jóob Yékini kenn xamul kan moo ciy dem demu Bombardier kenn xamul parce que tey Bombardier mooy le seul bi nga xamante ni résisté na ci génération boobu dafa tase ak mooduloo Lo daan ko dafa tase ak Balla Gaye 2 daan ko am deux fois euh, mel na Eumeu Sène moo ko ci daan donc mu ngi résister génération boobu ba léegi nii ak Tafatine mu ngi résister génération ba léegi léegi nag le premier janvier 2023 ñu bëri dañoo jàpp ne Balla Gaye 2 day ñëw pour jël si revanche revanche par procuration revanche boo xam ne moo combat ba moo doon dox diggante Boy Niang 2 ak Sa Thiès la 11 mars 2018 alors que certes ñenn ñi mën nañ koo tuddee revanche mais ouverture làmb la li tax mu nekk ouverture làmb mooy da nga doon dégg ay jamono ñu naan làmb pour mu neex il faut ñu def grand contre petit parce que boobu ñoom Balla Gaye seen cercle bi dafa restreint cercle boo xamante ne nii tëju na ñi ci war a bëre ñii ñëpp bëri nañ deux fois ñii bëri trois fois wala ñii di di waaj a bëri trois fois ñi ci nekk ñëpp presque laalante nañ. donc il faut mu am benn benn benn cent neuf boo xamante ni moom mooy ñëw ajouté wu ci cercle boobu pour que combat yi mën a mën a bëri combat yi mën a neex moo waraloon ñuy wax euh, euh, nu ñu koy xeeti sax. grand contre petit mën a waaw ci ci boobu noonu nag ci la Balla Gaye 2 jële Boy Niang mu war a nekk la premier janvier ci la Gris Bordeaux moom aussi jële Ama Balde mu war a nekk le 5 février même ci la Modou Lo moom it jële woon Ama Balde ci la du la jëlee woon Ama Baldé mais grand contre petit bi ki ko njëkk a def ci ñoom c'est Tapha moom mi accepté wàcc bokk ak ñoom Jos Claf bokk ak ñoom Ama Baldé bokk ak ñoom guy gi kooku moom moo njëkk def grand contre petit bi mais heureusement que yéen ñeneen ñi fekk si nañ ko ci donc am na ci ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi xaar seeni bos Bombardier ñu ngi xaar bosam ban xale lay jël Eumeu Sène ñu ngi xaar bosam ban xale lay jël Lac de Guiers numéro 2 moom aussi def na ko parce que tàllal na booy Niang loxo. te waaw Tapha aussi def na ko la voie passée parce que euh, mën naa ne tafaatin moom moom moo ëpp lu muy bëre ak xale yi parce que moom moo nekk ci presque ci port bi xale yi képp kuy fëgg da nga naan. jox leen ma Tapha ci bun Tapha Tine la ñuy jaare fa la Zos jaar sottiwut fa la guy gi jaar sottiwut fa la Ama Baldé jaar mu sotti fa la Boy Niang 2 jaar sottiwut mais cercle boobu noonu il faut mu am ñeneen ñu ci ajouté wu pour que cercle boobu ñu mën a am ay combat yu neex. ma euh, moom moom Tapha Tine sax lay lay le 12 février 2023 premier combat revanche de Tapha Tine le 1er janvier prochain Tapha Tine fêtera ses 18 ans dans l'arène une carrière qui a débuté en 2005 débuté en 2005 contre de Pikine et durant ces 18 années.

tey Tapha Tine boo ko xoolee fi mu fi mu commencé ak fi mu taxawee presque benn la quatorze victoire nga may limal cinq défaites ci dix-neuf combats yaa ngi wax naan mu ngi débuté en deux mille cinq le neuf janvier bi muy daan Malaw Seras bi muy daan Malaw Seras Malaw Seras bu Pikine en deux mille cinq ci la commencé làmbam fi mu toll nii ci carrière am mbëru Pikine la mujjee daan muy Boy Niang kon euh, moom moom waa pikin daa mel ni <laughs> xam nañu ko mais tafaatin ci biir yaa ngi wax naan mësut a disputé revanche mais tey bu ñu limité woo rek ci ay victoire tafaatin Tine da ngay lim ab champion boo jógee ci Malaw Seras Sa Kajoor 2 ngay tudd boo jógee ci Sa Kajoor 2 Talla Gaynde ngay tudd boo jógee ci Talla Gaynde El Hadj ngay tudd boo jógee ci El Hadj Diouf Junior moom ngay tudd boo jógee ci yëkkini Junior booy Sey ngay tudd téyel ma turu téyel ma turu Yékini Junior bi le 29 juillet 2007 la bëri ak Yékini Junior daan ko boo jógee ci Yékini Junior booy Sey ngay tudd décembre 2007 après booy Sey Abdou Diouf mai 2009 après Abdou Diouf Cech mars 2010 après Cech Elton juillet 2011 après Elton Bombardier juin 2012 après Bombardier Guy Gi avril 2015 après Guy Gi Zos janvier 2016 après Zos Yekini Junior encore janvier 1er janvier 2018 après Yekini Junior Boy Niang 2 kon bëri na ak Yekini Junior ñaari yoon daan ko lan la journal bi wax. jël joxe na revanche. waaw joxe na revanche benn yoon ci carrière ci Yékini Junior la daf ko daan. jox ko revanche daanaat ko. dafa daan Bombardier jox ko revanche kon. Euh, bi mooy deuxième revanche am mais revanche am bi mu njëkk a joxe perte ko boo xoolee ay defetam aussi isaapu yi ngay tudd isaapu yi dafa nekkoon ci ay guddeem isaapu yi moo daan Balla Gaye première defetu Balla Gaye 2 ci Issa Pouye la ko jële première defetu Tapha Tine ci Issa Pouye la ko jële kon Issa yi mbër la moo xam ne dafa amoon benn statut mën naa ne bu particulier boo xam ne nii ak mbër moo mën di nekk ak lancé boo mën di nekk boo ñëwee ci moom da ngay am ay difficulté parce que dafa mel ni moom euh, moo ngi euh, le 10 décembre 2006. waaw daan Malaw Seras daan Saa Kajoor daan Taala Gaynde. non boobu boobu Malaw Seras la daan Saa Kajoor 2 Taala Gaynde. ak El Hadj ñoom la daan muy 4 combats 4 victoires mu taseeg Issa Pouye Issa Pouye freiné ko. mu amaat defetam en deux mille 2007 contre Lac de am defetam contre Bazoka en 2009 am defetam contre Balla Gaye 2 en 2013 am defetam contre Ama Baldé en 2015 donc 2015 ba léegi nii Boy Niang euh, euh, Tapha Tine amaatagul mille quinze boobu bi mu ca jógee parce que mille 2015 moom la am defetam ci Ama Baldé bi mu jógee bi mu jógee ci Ama Balde ci la ci la ci la ci la bëre ji ak Zos daan Zos daan Yekini Junior daan Boy Niang mu jógee ci défaitam contre Ama Balde trois combats ci tegaat trois victoires kon moom it champion la boo xamante ne nii vraiment euh, ku liir euh, palmarès am di nga ko respecté. Pape Demba Diop euh, sur le derby Parcelles Pikine Talfa est favori devant Sokh pour euh, devant Sokh bu ndaw à 70 pour cent euh, Modou Baye Fall de la structure Momo Production tient ce samedi 17 décembre 2022 sa première journée de la saison à l'arène nationale avec le début entre Parcelles Assainies et Pikine dirigé dirigeants et hommes Euh, toute affaire de l'écurie Kër Massar booloo Pape Demba Diop analyse Talfa Dondolaat ak soq bu ndaw Falaay Bale pour nos lecteurs tey daal ku si wax maa mooy kii di Demba Pape Demba nag moo nekk dirigeant ak homme à tout faire fees l'écurie Massar mbooloo Kër Massar mbooloo waaw léegi daal li ñu mën a jàpp foofu moom mooy moom joxe na favori ci derby bi war a dox ci diggante Talfa ak soq mu ndaw muy derby Parcelles pikin mais euh, combat boobu tudd nga Modou Baye Fall njiital moom moo production moom moo taxawal komba bi mu nekk làmb joo xamante ne nii mel na wala mu nar raw ay làmbam moom moo production dañuy fàttaliku combat bi mu fi ta bi mu fi tëggoon diggante Youssou Ndour ak Thiatou Daouda Fall diggante Baye Mandiaye ak Kaw Gourdin mu nekk ay combat yoo xam ne nii ay combat yu neex la ay combat euh, espoir la mu ñëw indil ñu beneen combat boo xamante ne nii duel des géants la ndax tey boo tuddee Talfa tudd soq bu ndaw ay gone lañ yoo xamante ne nii seen gabari seen corpulence euh, moo leen moo moo gën a moo leen gën a def mbër ndax mbër yaram mbër yaram mbër doole boo ko manqué rek manqué loo xam ne nii saa yoo xëyee danga koy wuti waaw donc ah? ñoom ñoom ñoom ñaar benn duel la boo xamante ne nii duel bu neex la ñëpp d'accord nañ ak analyste bu mën di nekk d'accord nañu que ñaari xale yi ay mbërantaan lañ d'accord nañu ne ay xale yu mën a bëre lañ d'accord nañu ne ay xale yu diis lañ kon boobu combat bu mel noonu bu amee da ngay euh, xalaat rek soit nga xool ci qualité mbër yi pour mën a joxe sa sa sa favori mais daal li ëpp solo mooy la différence. ñu ngi koy defee ci biir géew ba waaw. Talfa moom démb defoon na open press am dama xamoon na soq bu ndaw moom kañ lay def Mbissane après sa victoire sur euh, Boy Diakhao 2 prêt pour réparer Mbacké Faye de Boy Diakhao 2 de l'écurie Mbenn Barak dimanche dernier Mbissane de Tivaouane Samba Diaw de Thiès qui reste sur huit victoires et deux défaites est revenu sur prestation ses ambitions de la saison waaw Mbissane mu ngi bëre woon keroog dimanche ci arène national ci combat yi jam production tëggoon ci diggante Zambala ak booy Faye moom euh, Mbissane moo daan booy Jaxaaw numéro de moom nag décliné na ay ay ay ambition wala joxe na feuille de wala joxe défié na mbëri mu bëgg a bëreel réparé bu géejawaay Mbacke Faye bu parcelle. dafa mel ni euh, gone gi mbisaan yéen a nekk ci viseur am loolu nag dafa baax si làmb daan laaj ñi nga bëgg loolu rek mooy indi ouverture bi waaye boo daanee nga ne non bàyyi naa ko staff fi nangam nangam nangam. waaw mais boo boo daanee rek tuddal ay mbër te fiyal ay mbër. waaw balaa nga cee balaa nga cee jóge amaat combat. Jackson 2 met je suis prêt pour la lutte et la bagarre Mouniang Production de Serigne Modou Niang sera à l'arène national de Pikine ce dimanche 18 décembre 2022 inchallah rabbi avec le choc entre Jackson 2 Boun euh, benn Jackson 2 Jackson 2 Boun Mbollo El Hadj Dior Balla Gaye 2 de waaw bu Balla Gaye Euh, combat boobu Serigne Modou Niang moom moo ko taxawal euh, mu war a nekk le 18 décembre dimanche bi ñu dëgmal ci arène nationale Jackson 2 nag xam nañ ko Jackson 2 moo fi daan Yankaaw Junior mu dudd Bakassar gone goog nga xam ne fan yii mu ngi toj lutte sans frappe bi vraiment saa yu génnee euh, def surprise ñu koy éliminer ci lutte sans frappe. ay champion lañ yoo xamante ne nii tey ñoom ñoo teg seen tànk ci lutte sans frappe bi ndax ñaari yoon yi nga xam ne nii perte na en quart de finale yëpp bële ca euh, stade Iba Mar Diop bo euh, kii ordinateur moo ko moo ko moo ko quart de finale bi mu pertoon aussi foofee ca terrain gaal gi moom ordinateur moo ko éliminé waat donc nekk na mbër moo xam ne nii miin nañu ko xale bu mën a bëre la. donc suñ la nee Jackson moo daan Yankaw Junior rek da ngay xam statut Jackson Junior te yemut foofu moo daan Naaru Ghetto numéro 2 moo daan Modou bàyyi Fall numéro 2 moo daan Black bu Dóor Dóoraat kon euh, daan ercule bu Grand Médine aussi kon Jackson 2 xam nañ ko ñaari defet yi mu am fils de Zal bu Cheikh Mbaba moo ko daan ak Tony Junior Tony Junior nag moom it champion la champion ci lutte sans frappe champion la boo xamante ni ci catégorie moom aussi mu ngi demaloon dakaar ci catégorie soixante seize kilos euh, mu nekk mbër mu mbër mbër mu mbër mu mën a bëre mbër mu am talent mbër mu am avenir kon Jackson Junior vraiment euh, vu ay ay ay ay ay combats yi nga xam ne bëre na ko ay victoire am ak ay defetam am da xam ne moom champion la parce que champion moom mooy daan ay champion te ñi ko daan aussi da xam ne nii ay champion lañ ndax ñu ngi wane seen i ba léegi. nga xam ne dernier show mooy fu koy tëjee mooy euh, contour Gamou Gueye 2 le décembre dafa am mbër attendu pour la confirmation après ses débuts en après ses en fanfare dafa am mbër de Rock Énergie avait perdu ses deux derniers combats contre Mame Balla 1 de Pikine Mbolo et Ada Fass de Fass de Fass Benno toutefois dafa am mbër s'est lancé lors de sa dernière sortie devant les jeunes

parce que wax nga ko sa biir wax dafa daan liis njaago dellusiwaat ndax avant boobu dafa am ay defetam yoo xamante ni moom moo ko wàcce woon defet yooyu mu ngi ko amoon ci diggante euh, diggante mu Maam Ball 1 ak Ada Fass mu nekk ay defet yoo xamante ne nii tey moom moo ko moom moo ko jàpp ba mu am baisse de niveau mu ñëw rattrapé wu ci ki nga xam ne moom mooy euh, Liss njaago ba pare nag yootu ji koo xamante ni tey bu ko daanee mën naa ne même digganteem ak ñoom Ada Fass digganteem ak ñoom Mame Balla yooyu yëpp mën naa ne day brûler les étapes ndax adversaire bi mu am la muy Gamou Gueye kan nga mujjee bëreel nga ne soq eh. kon xam nga ne Gamou Gueye catégorie ñoom soq la ah. te combat ak soq amul kenn ku ñeme a joxe favori lu dul ñi wax wàllu xeex yëpp dañoo ne woon bu ñu xeexee Gamou Gueye moom mooy am ndam ndax xam nañ ko ci mën a xeexam mais xam nañ ko aussi ci mën a bëreem mbër mu mel noonu nag bu bu bu euh, bu Tapha Mbeur am ci moom dara Tapha Mbeur daf koy yóbbu ci beneen statut. ci beneen da koy yóbbu ci beneen level. Euh, en tout cas daal le 24 <laughs> kon kon il faut am ku nooyal ci ñoom. waa am ku nooyal si ñoom wala <laughs> Ibrahima Diba Ibrahima Diba ñu ngi lay ziar naka liggéey bi naka suba gi mbaa yaa ngi am jàmm bu baax en tout cas daal retrouvaille la Gamou gay 2 dafa am bër ñoom ñaar retrouvaille la ginnaaw seeni waxanteek seeni jëfanteek seen lépp fas yéene nañoo daje vendredi bi d'abord waaw vendredi bi war nañoo am confrontation confrontation boo xamante ne nii tey euh, moom mooy wane ñaari mbër yi seen niveau ci wàllu entraînement seen niveau ci confiance parce que ni ñuy communiquer day déterminer ñoom ku ci nekk ci fi nga tool ci wàllu confiance en tout cas làmb la boo xamante ni ça promet euh, vendredi 16 décembre la ñu fas yéene def seen face à face à partir de 16 heures à nationale de Pikine yaaram Art Production moo tëgg bile combat. waaw. daf mel ni 24 décembre gis naa benn la suñu làmb def affiche si ginnaaw. 24 décembre. waaw waaw moom la. nekk combat spécial. boobu mën na nekk le 24 décembre. le 24 décembre xaaral ma xool. le 24 décembre Tapha Mbeur mooy bëre euh, bëre ak Tapha Leer ak Tapha Leer. Oh, Gamou Gueye ñooy bëre le 24 décembre. Euh, kon normalement boobu moo war a nekk levée de rideau bi. boobu moo war a nekk levée de rideau bi. en tout cas le 24 décembre boobu caatu fora bu Lansar war naa bëri ak euh, au sod bu yaraax loolu it le 24 décembre la kon euh, combat yaa ngoog dafa mel ni seen ñu ngi ci ñu ngi ci cappaandaw bi Lac Rose Queens le 30 avril 2023 Elimane Lo joxe na date bi euh, loolu foog naa moom mooy li li gën a fës Jax day dellu si waat le premier janvier avec 3 millions Jax reste au terrain gaal gi de xaar yàlla de Grand Yoff le dimanche premier janvier 2023 teg fa 3 millions au moment où Gaston production nekk ci arène nationale diggante Boy Niang 2 ak Balla Gaye le même jour kon le premier janvier dina neex bés la. seen mën naa jër jërë ngeen jëf mbokki internet yi mbokki amateurs yi Ibrahima Diba ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon bàyyi xel ñëpp canta ak ngërëm ñeel na leen di leen jox dig daje ba suba incha allah jaajëf seen. jërëjëf Basi ak képp koo xam ne moo doon déglu si Wassare Lamb day jox ngeen jëf ñu yéen ak jàmm.